wajalilaayi maskani tubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat wajalilaayi maskani tubaabaat kon mooy Touba misrasmi abijaayi xayri manabaat wasalliyan alayhi abdal salaat waali wasaabi sawi silaat wa kullu man qaddamani awsaara fanajjini wafidhu awsaara wa kullu man aabani aw maara illa yafasuqu dan law maara wa kullu man sattamani aw laama فابلغوا التوبة والاستسلام وكل من أساء فالنوبيا فليقل قلبه يا ربيا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 tey ànd ak sëñ ci liggéeyal sëñ Tuubaa saa su nekk te di ko ñaanal mu yàgg fi te tey roy Cheikh Abdou ci tëgg di ñaanal sëriñ Maam Moor bu Cheikh Mamadou Murtada yàlla yokku fanam dolli ko jàmm ci barkeb waajure ma Cheikh Mamadou Murtada Mbacké ñaanalaale ko mbooleem sëti sëñ Tuubaa yépp ñaanal ko jullit yépp fas yéene dikk nag ci seen émission Hormay am alxamis ci guddi yi bu ne ba sëddi ajuma ci waxtaane ay actualité yoo xam ne dañ koy xool ba xam méngoo na ak orma ji ñu war a def ci Touba wala déet ak it Hormay Touba ndax da nekk Touba door koo joxe wala da nga doon taalibe Sëñ Touba door koo joxe loola tamit. danañ ci dikk ormay Tuuba dafa war ku nekk war gi mu war ko nekk nag tax na ku di ab murit yaa ko war a jiite ndax day dëkk bu ñu ormal dëkk boo xam ne bi ko yàlla di jox sëñ Tuuba ñu bari sàkk woon nañ ko te yàllaa ko aaraloon boppam déegal ko boppam ba xare mosu faa tàkk nit mosu faa def loolu naqari yàlla nit it su ko moom ba tax na wala yu bari gisoon ko ba ku ne jàppoon na yaa ko moom yàlla laaj dëkk bi dëkk bi ne sëñ Touba la gën a bëgg bëgg mu bëgg sëñ Touba nag ñun ñii dañoo war a ànd ak Touba bëgg sëñ Touba ndax sëñ Touba da ca digge loo xam ne yàllaa ko njëkk wax ci alxuraan yàlla dana dane yéen ñi nga xam ne yéen a ngi saxoo di def jëf ju rafet bu ëllëgee na ngeen xam ne seenu pay mooy àjjana jii nga xam ne moom laa tuddee Touba. lañ leen cay berndeel ci garab googu lay jógee sëñ tubaa ñëw ne Touba googu da ñeel na bépp jaam boo xam ne mu murit saadix na boo ma lëggéeyalee wala nga sapp ma wala nga jox ma addiya na nga xam ne ba lëggee Touba googu ca ña fay dëkkee ca ngay bokk kon na ku ca bëgg a bokk da ngay am melokaan yu tax nga defa bokk ndax dëkk ba moom li ma daan wax rek yërmaandey sëñ Touba ji moo bari lool waaye sëñ bi am na sécurité bu ko fa nekkal boo xam ne lu ko ci neexoon. dara kenn ko xam waaye yërmaande ci dafa bari am na ko ci jinne yi am ko ci ñi nga xam ne mooy nit ñi am ko ci malaayika yi am ko ci xasida yi waxoon naa ne ne xasida yii am na ci xasida yoo xam ne dañuy soppali ay jëmm te boo ko waxee nag ab dof day defe ne da wax waxe daanu ko soppale ko ay jëmm dugg ci dëkk bi di liggéey sëñ Tuubaa ci ñi nga xam ne nekkuñu fi nañ fi war a nekk mi ngi mel na nga taxaw ak muuma boo xam ne li ngay wax dégg na la te mënu laa tontu nga naan ak ah, kii de wax dara fekk loo bàyyee ca wax ja wala nga ko ca mu la koy gën yooyu nag ñu ngi ci dëkk bi fees fi del jëmmi doomu aadama la ñuy taxaw dugg ci dëkk bi léeg-léeg nga gis nit am melokaan woo xam ne fii boo ko da nga ko yërëm da nga ne ah lu ko dal te démbam boo ko xoolee da ngay gis ne kii ku nekkoon ci li loo loo lu nit ñu xemmee man bëggoon ko waaye loolu lépp it na gis nañ ne dara du woon ci yàlla ak yàq la woon tey ji xasida yooyu ñëw jëflanteeg moom ba ku ko rombatee da nga ko yërëm ndax lu nekk mën na faa jaar nit bi ci des mooy malaayika yi malaayika yi wax nañ ne kuréel gu fa fanaan ba liggéey du bokk ak gafay fanaan kon malaayika yooyu di fa ñëw te kenn du leen gis ah te am doole am kàttan tey wuyee ci ndigal ah ñooñu moom ku le ku fay def loo def xam nga ne. da nga am problème bi ci des mooy jinne yi jinne yi sëñ bi nee na bi mu sancee Touba benn bis dafa woo mag ñi ni leen damaa bëgg a waxtaan ak yéen tey ndax démb kat jinne yi ñëw nañ ci man def ñetti kuréel genn kuréel gi nee nañ jox nañ ma seen bopp te dañ may jàppale ci dëkk bi kuréel gi ci des nag nee nañ duñ ma jox seen dañ dañ am nañ kilifa ba noppi waaye dañ danañ ma jàppale ci kaaraange dëkk bi genn kuréel gi nee nañ duñ ma jox seen bopp te dañ fay des di yàq xuma dëkk bi gëñu bi su keroog foofu dañ fanaan te xam ngeen ne waxi sëñ Tuubaa du deltu gannaaw bi mu am ci doomu aadama yi rek mooy biñ teg bët muy police ak gendarmerie ak ñi nga xam ne ñooy safinatu léegi nag pour bëgg leen a wax ne leen sëñ Tuubaa nee na lu waay yewu yewu yewu ci àddina mënoo nax waaye lu waaye dof dof du la nax lu waay yewu yewu mënoo ma nax lu waaye dof dof du la nax te am na ci lool ak yeewute la ñuy jéem a jaay ndax murit gi yomb na ku mu neex dugg waaye boo xoolee murit gi nga xam ne mag ñaa ko fonde dale woon ci benn bu fukk ci kuréel gu njëkk bi ñooña day xaluñu woon bànneexub àddina ndax taxu leen woon ni jóg sëñ lañ defoon muy seen bànneex te booba ak naa fekk amul ndax li yëf yi dafa metti woon te jafe-jafe yi am na te mënoon nañoo dem ba jëmmi jamono yi am ci ñu daw génn waaye booba naa fekk amul yàlla lañ jël teg ñoo ñooña kon yaakaar na ëpp leen bâche ci yoon wi du yomb léegi nag comme murit gi bari na am na ci ñu gis nañ ne may yi nangu na yàlla sëñ Tuubaa nga joxe ñu daw ñëw waaye bu ñu woote woon lu métti ñu daw génn te danañ nekk fi barab it di jéem a nax sëñ Tuubaa te fekk na seen bopp dong la ñuy lor kon sëñ Tuubaa nee na lu waay yeewu yeewu mënoo ma nax te ñooña ñoo fees dell la Tuubaa ñenn ña la leen fa indi mooy Tuubaa dee fa fayum ndox ñenn ña la fa indi kii bu mooy lu fa neex waaye mën nga ko dëkk ba dëkk bu sëñ kon jàpp nañ ne ñoom ñu bëgg a def ci lu bon rek mën nañoo jëw naq laqatu ci Touba moo tax Touba dëkk ñëpp a nga fa lu ñuy tere lu nekk bañ a jaar ci tur waaye ña fa ba liñ fa jàpp di mu géngéen ko borom ñaari tur yi léegi nag li xam ne moom laa ciy wax liy am ci dëkk yépp mu nga fay am waaye nag euh, la la jëkk yeneen dëkk yi jigu la ci Touba ndax suñ Touba daf ne dëkk bii di Touba de ku fi ñëw yor sama jikko jële jikk nee na nit ñi nag duñ yor sama jikko dañuy ñëw indaale seen jikkoy maam ak fañ dëkk waaye du leen jikk loola ana mooy lan boo duggoon ci sa biirum néeg yow kepp dem ca digg déndi Tuubaa ya fa fa Tuubaa catee ca cet la nga def fa say néeg kenn fi gisul la ku dul yàlla nga def fa sag mooy yàlla yàlla ci xereñam dimbali na sëñ Tuubaa dana la weer bi ca dum dara kam ba nga dem ba defe na sax yow lii defoon nga ne lii du la fekk te bu la xasee weeru ba nga weri ko nag ah na nga xam ne yow moom duutoo jag ba àddina di tukki te loolu ñi fa jot jaar gis ngeen am na mooykat yàlla yu fa nekkoon yoo xam ne gis ngeen nañ daan def benn soxna bu fa nekkoon yor borom këram mu nekk bitim réew mu yor ñaari téléphone benn téléphone bi faagu nga def ci casque bi ci des nag mooy bi nga xam ne ci lay def li nga xamante ne fii mooy group yi muy bokk. waaye mooy yàlla ga mu ko doon def nag daan génn dëkk ba di daje ka koy defanteel di génn di dem ba ci yeneen dëkk yi tey jóge Touba léeg ko ko ñëw Touba fekk fa loola ba ko sëñ Touba di weer yaakaar naa ne loola police agul ci recherche boobu bu mën na def lu mel noonu kon la ma leen waxoon ne malaaka yi ginne yëg xasida yaa ngi fi kon loola bu leen ko wedd téléphone boobee nga xamante ni si mail libar la la mën a waxee ci la ko borom kër bi doon téléphone bii nga xam ne nag ki lay waxee ci kas ci la ci mën naa wax ci kas ka mën naa wax ci ci normal ci la def seen groupe mbootaay googu xa mbokk yi bi mu demee nag dugg bay commencé wax waxam ju rafet bi ko sëñ Touba weere farwa woo ko mu def ko mais en libre te léegi fàtt na ne aj na vocal bi ba xombe ko léegi nag moom fàtt na loolu la la muy wax ma ngay dem ca groupe ba la waajay wax ma ngay dem ci groupe ba ba diire lu toll ci 30 minutes jëm 40 minutes nëbbuñu dara fu ñu mës a jaar wax nañ ko loola yaakaar naa bu police jàppoon ci seen loxo doon leen enquête sax enquête bu mel noonu mënuñu ko am kon def leen très attention wala mu ko mujj jural mooy wàcc nañ ko génne nañ ko dëkk bi am na ci koo xam ne fii dafa doon ñëw doon fa jaay si sàngara màggalu Tuuba te wuma sahid naa illaa ko génnee ñëpp gis ko def ci gannaaw moto bi ak def ci sàngara di daw ba mu yàgg mu def benn infraction rek daal di jekk-jekk daal di daanu moto bi bitéeli sàngara yi daal di génne daal di tasaaroo te moom dara mujj ko jot ñu jàpp ko la ko weer ca loolee xam na ni borom ndëkk bi mooy sàmmal boppam dëkk bi la fa jig nit daal mooy jéem a jub boo jéem a jub nag da nga sonal sa bopp sonal sa njaboot te du la tax a mucc moo tax kooka noonu la ko yàlla jekki-jekki weer ñi nga xam ne am nañ fa ay kër te kër yi ci ab quartier lañ nekk quartier bi am chef de quartier am délégué de quartier ñooñu sàggan gana sàggan ca lañ leen dénk ba fonk nu ko bari na fa kër yoo xam ne ña ko tabax te ëggul foofa la ñenn ñi di dem di ko di fa dëkk di fa tox yàmba ak di fa bay yàmba ñenn ñi tabax nañ seen kër ba mu baax di ko commerce si lieu que ñu luye ko dañuy dem di jële ci àll ba ñoo xam ne danañ leen ca fay loo xam ne xaalis bu bari lay doon su ko defee ñuy defaat ci seeni gafaka te loola chef de quartier baa ngi fa délégué de quartier baa ngi fi ndax seen nga gis kër goo xam ne nga gis rek ay bagages yu jékki-jékki di wàcc te kenn ku romb na sama yónni ko ci kon yéen yi nga xam ne yéen ay taalibe yi te dëkk ci biir dëkk boobu bu ngeen gisee kër gu bees bu ay nit di wàcc xëy na amu leen droit dem leen ko laaj waaye dem ngeen wax ko chef de quartier ba xam yëg na ko ndax chef de quartier mooy def lu xew ci quartier bi ku ñëw war na la xam wooloo la dikk na la yaay kan jël sa tur enregistré wax la nan la ak naka la bu ëllëgee bu ñu defee dara ci kër googu fekk moom jëloon na say données ñu mën laa jàpp daal lay bilité waaye pour war leen ne leen li ngeen di def du jàmm kuy def lu bon teggil Touba te ko yàqoo Touba du too jag loolu moo fa bari ñiy sol mbubb yoo xam ne dañuy nuroog waa dëkk ba te ay kooba lañ te buñ génnee mel neneen te ñu koo ci wax nee na am na kër sëriñ boo xam ne si moom la yaakaar am na ci koo xam ne sii weer woon na fii te mu ngi ci audio yi dem wut appartement dem di wut ñoo xam si da di campagne la di wutoon di leen wutal ay jigéen ñoo xam si dañuy taxawal ba gis nga ndaw sañ ko jàppoon la mu yëkkati wax mi ngi dëkk ci benn dëkk ci këri diine yi yor na borom këram yor lépp te wax ne moo ko fa indi it kooku turu ko tedd na ci ko ab sëriñam tudd na turam wa jaar te ñooña ña nga fa bari lool kër yu ci baree bari am na ci ay courtier la ñu doon ñooy dem di fa indi taxawaalukat yooyu ngir chantage bu ñu leen cee def borom kër yi ñooy dem di luyee seen kër yi ngir ñooñu ñëw di fa def ak safaan waaye ku ko ca defee gis ne la sëñ Tuubaa def di lay fay rek da nga weeru ba ci kum dara kam li ci safinatu amaan di daaneel kenn xamul ni mu toll kon nañuy moytandi def lu bon Tuubaa lu bon taxu ko jóg ku bëgg a mucc àddina ak àllaaxira bëgg a texe moo tax sëñ Tuubaa yàlla jox ko Tuubaa ku bokk ca ñooña nag da nga mucc ku bokkul ca ñooña nag na nga xam ne jotee sëriñ Tuubaa dara kon ñii rawale si seen alal ak di fa dugal ab safar ngir defe na Touba kenn du fa contrôle ñuy contrôle ci yeneen dëkk yi tax na guddi yi ñu toll na pare seen na ciy jógaat te jógaat gi du cee gën a sëñ Muntaxa mooy jógal boppam ndax lu fii murid yaa bàyyi xel lu xew ñu naan sëñ Muntaxa war na cee wax bëgg sëñ Muntaxa yore tànkam di dox di yëpp bëtam di xoole rek suñ jaayante ak sëñ Touba du dëgg ay naafiq yu baree bari kon ñooy wuyoo ay murid te duñ murid waaye li nekk ci ñun buñ nekk ci xam ne sëñ Muntaxa mais nam gëmee sëñ Touba moom ñu na ci bokk yam loolu la sëñ Modou Moussa doon wax naan yéen taalibe yi tey li ma leen ëppalee ci sëñ Touba ëppale wu ma leen ci sëñ Touba ndax li ma ci am ngeen ci am mu yaakaar ko gëm ko topp ko loola ngeen ci am kon nag loolee li ma sëñ Mountakha am ci sëñ Touba te lam bëgg ci sëñ Touba moom lañ bëgg ci sëñ Touba ndax loolu mooy li nga xamante ni si mooy am kon nag bët ba mu war a xoolee luy jagal Touba noonu ñi moom la ñu war a xoolee luy jagal ku gis ci koñ loo wër te gis demal nga dénoncé amul sama yoon nekku ci amul leneen nekku ci bu ñu ko vérifié ba mu nekk lu jub ñu xëyrun bu ñu ko vérifié ba mu nekk lu dul loolu ñu jël ko waaye bu ñëpp bëggee toog yor seen i bët di xool di bàyyi nit ñey def lu naqari yàlla ci dëkk yi bëgg a bàyyi sëñ mën taxaa jóg solo dàllam di dem li koy wump ca dëkk ba dana bari te loolu de du dimbali kilifa du ñaanal kilifa yëpp dimbali kilifa mooy nga dimbali ko ci lu neex yàlla boo gisee safaan wax ko ko moom mi la gën a jot kàddu gën la ëpp barke te yor responsabilité bi man koo wax li jënti loola jàll waaye gis nañ ne Touba moom fi mu ne guddi yii ñu toll ah xam naa ne day li wér te wër li ñuy xëy di rob ci armeel yi ak li deeg surprise ak jàngoro ji dul wér la ko teg nit ñi du lenn lu dul bakkaar yi ñu fa bëgg dëkke sëñ bi ne ci bokk ñenn ñi yëpp ña nga ci biir dëkk ba sëñ Touba tuddoon leen démb ne leen dañoo jóge ca dëkk ba bàyyi fa seen i néeg bàyyi fa lañ fa bëgg lépp ñu bàyyi ko ci dëkk ba te bàyyiwuñ fa seen jikko ji seen jikko yu bon yooyu nag lañ fa waroon a bàyyi wàll waaye dañoo ñëw indaale seen jikko yooyu biñ dikkee toppkat sëriñ si di fi wut ab place ak bëgg fi turu ak bëgg a sonn te doo bëgg am alal te doo sonn ngay ñëw di ci sëñ bi di ko fenal di ko bokkam di ko tàqaleeg ay bokkam di ko tàqaleeg ay taalibe yi lu bon loo xam ñëw wax ko muy yàq ab diggante loolu gis nañ ne bari na ci biir Tuuba lool waaye non seulement bari na ci tubaa bari na ci taalibe yu bari yi nga xam ne ñu ngi tuddoo Sëñ Touba te Sëñ Touba bëgg ci ñoom Sëñ Touba amu ko ndax ñoom rek dañoo dem sol ak seen bubb ma ñu soloon bañ jébbalagul di ko doxee ci àddina te ne Sëñ Touba laa àndal kenn du ànd ak ñoom te yorub safar koy ànd ak Sëñ Touba da ngay tegu ci siraatal mustaqim ku ànd ak Sëñ Touba da jub ku ànd ak Sëñ Touba da ngay wax lu baax ko ànd ak Sëñ Touba da ngay yéene nit yi jàmm ku ànd ak Sëñ Touba ku la gis war na laa ràññee ci jub waaye lii ma gis léegi ñu naan ay murit ah yaakaar naa ne de nii ma ko gisee fi ne lobby yi jóg pour taxaw yàq yoon bi ñoom ñooy doxee noonu ci yoon bi recruter ay nit ne leen di leen tuddoo yoon message yi ñu bëgg ngeen jàllaleel ñu ko ngeen ñëpp di leen ko jàllaleel loolu mooy li nga xamante ni si mooy li ci am te ko seetlu da gis ndax borom ñaari tur yi moom tudd ko sax dafa ëpp waxuma laaj mu ne day dëkk Touba Touba boo fa dëkkee amoo fa place Touba boo fa dëkkee mënoo fa liggéey léegi nag kon ñooñu kon xam nga ne ñooñu sëñ Tuubaa ñuru leen nga xam nga ne wóor na la nekk ku tuddoo sëñ Tuubaa yor sa yëre yu yu yi yor say bàyyilaat di bokk ci dayre yi yor say suyee bu di bokk ci dayre yi te jikko ju mel noonu nekk ci yow xam nga ne wóor na la ne kon dañ laa yabal ne la demal yàqal fi diine ji comme lii xew ci àddina bi nga xam ne waxtu jot ñu ngi koy coow loolu nag bu ñu bëggoon mu jóg fi dañuy boole suñu bopp xam ne ñaar bu ñu bokkee fu ñu jëm te jubóowuñu am na ci ku fen ñaar bu ñu àndee di dem te bokkuñu te te déggowuñu am na ku fen sëñ Touba la gëm sëñ tubaa laa gëm bu ci coow amee rek am na ko fen waaye bu ñu bokkoon benn bëgg-bëgg bokk fu ñu jëm xuloo du am ñëpp bu ñu bokkoon bëgg-bëgg kenn ku ne li ngay sentir ci sëñ Touba nga fésal ko ci say jëf ànde ko ak sa morom ànde ko sëñ Muntaxa yi di ko jàngee xasida yi di ko jàngee alxuraan yaakaar naa ne sëñ Touba bëgg ci ñun dana ko am ndax sëñ bi moom la muy am am na ko ba noppi léegi nag jariñoo yi ci def jariñ googu nag bu ñu nee ba mënatuñ cee jariñoo rek danañ yàqu àddina danañ yàqu àllaaxira te it képp ku ci faatu moom fa jëm xam nga ndax sëñ Tuubaa waxoon na ko gis naa yàlla jëlub yar jëmee ko ci jaam yi te loolu laa doon bañ te lim ñu doon tere la ñëw doon ñu ko wax te lam ñu doon wax nanguwuñ ko def yàlla mujj jëlal boppam yar ñëw fàq jàpp ci jaam yi di dóor ndax moom ba ci boppam loolu la xam moo tax mu ne wax ne ko sëñ Maxtaar bind loo wax ko ñu bari di leen yoonu sëñ Tuubaa sama yoon wii de gis naa ci am maamu xam ngeen maamoo ñu ne ko ah, maamu day noonu xamu na ko baat mu ne leen mooy mbooloo mu dagg. fekk si mbooloo mbooloo moo xam ne si ñoom ñu nga teg seen tànk yoonu gaaw jëm sawara nga xam ne bu set ñuy wax naan diw feeñu na ma sëñ tubaa feeñu na ma saay saay bu jóg na sëñ tubaa nee na ma nangam nee na mu bari wuy si leen ci mbooloo di faqat di ñëw di duggal ci ñoom te ñoom nee na wóor na leen ñooñee sawara leen jëm te ñooñee nee nañ man maay seen sëriñ loolu nag gis nañ ne bari na lool ku jóg waxam safaan ci sëñ tubaa ñu ànd ak yow ku jóg wax la sëñ Tuubaa waxoon ñu noonu la fas yéene fàq yëpp jàmmarloog yow mën nañ la bañ àddina ak àllaaxira loo wax dee sutu la xol loolu nag feeñ na ci lii nga xam ne mooy YouTube bi ñu bari di def ay safaan ay wii lañ ciy bëgg boo dee wax ab safaan danañ la danañ la apprécier boo dee wax loo xam ne si dëgg la daf lañ lay jàpp lañ jàpp la ko bari wax kaadar boobu man féete la nañ waaye teeloon nañ ma alerte nag ne ma nag lii boo ci duggee te di ci wax ay say da nga wuti noonu waaye noonu nit ñi ma te ko wax lu neex nit ñi wax nga lu naqari yàlla ko wax lu neex lu neex yàlla wax nga lu naqari nit ñi ndax nit ñi bëgg ñu dox ci ab dëkk suñ demee ba dëkk bi ñu bëgg koo def ab complot di politique suñ biir la taxoon ak sëriñ jóg ñu ci bari gisatuñ ndax da ngay dem ni song sëriñ ngir jëmi sëñ Tuubaa mu dem ci politique bi sap ca sap gis ab dëgg bi ci ñemee teg tànkam dajale mbooloo di ci carte xaalis te lu luñ ko jox xaalis man luñ ko wax loo ci sëñ bi wala ñu sa safaanoo safaanoo safa safaanoo la ko ak yo doxee yoonu mu mën na ko def kon mel na ne kon la Cheikh Ibrahima ne bu leen def aw sant muy seen sëriñ waaye na ngeen di def nit ku ñu yar ba tarbiyee ko jikkoom joojee ngeen def ko muy ab sëriñ waaye ku jël aw sant def ko sa sëriñ mu di la diggal ak tere kat bu ëllëgee da nga am lu la naqari ci sa bopp kon nañuy xàmmee di ràññee loolu dana bokk ci li nga xam ne mooy tax suñu dox neex nañ doon doxee. doxewuñ ko te la mag ña bëggoon bëgg nañ la mag ña bëggoon nag bëgg ko te doxuñu fa mag ña doon dox loolu mooy dëgg-dëgg ak naafiq te taalibe yi ci baree bare tey kenn koo ci wax lan mooy bëggum sëñ tubaa loolu ko ànd ak sëñ tubaa te bari na ci lu ñu lay nettali ci sëñ mu jël ci taalibe yi la cay dëgg duñ la ko wax dañ koo dagg sànni ko taqale kole coupé kole te fii nu nekk tamit bare na ci kilifa yoo xam ne si dañ fi ñëw waaye bi ñu fi ñëw jàngal ñu suñu diine ak dina ko fàttali taxu danoo ñëw bëgg jël liñ nekk ci suñu loxo ku ci ñëw nag te waxuloo la sëñ Tuubaa doon wax sa morom nga dajal rek ko la nga yor nopp la doole adressé la waaye ku fi ñëw naan la yàlla nee na yonent nee na ba xool ci la ci say loxo ndax am na ci ay benn benn yoo xam ne fii ñu néew lañ ci ñoo xam ne si ñooy dem ba ci fa ñuy dem sax di fa wuti ay ñu nit ña di fa wuti ay addee bu di dikkee dañ fay bàyyi dara kon ñooñu yàllaa leen ñor nit ki du lekk lu dul wërsëg mukk te yàlla lu mu nar ci jàmm bi nit nit nit mënu koo xaj te it yàlla dafa wax ne liggéey leen ma may leen ngeen di ma ñaan ma di leen may ngeen di ma sant ma di leen doy jaamu leen yàlla ma tàbbal leen àjjana léegi nangatuñu jaamu yàlla bëgg àjjana nangatuñu liggéey bëgg a tedd musiba dana am yàlla ñu tiim te moo ñuy jàpp duñu duma duñu teg foo xam ne si duñ fa mën dal kon xam ne Tuuba lu fa waay di def say boo nga dakkal ko boo fa bëggee jàmm nee ñuy faatoo de bu set la ñuy ran ca ba nga la ca bàq yee kenn ma ni mu toll bari waay koo génne nañ xool lu ci baree bari la koy waral nit dana fa nekk di tooñ yàlla ba yàlla teg ko fa jàngoro lam yoroon ci alal di mooy yàlla lépp ñu koy def ko fa def ko ci moom ba mu jeex te du ko taxawir te day dee bàyyi ko fi te bu faatoo lam doon mooy yàlla dana ko fa fekk nam amee alal ji dana ko fa fekk yéene jam amoon dana ko fa fekk yooyu nag képp koo xam ne si jàpp nga ne bu ëllëgee sëñ Tuubaa da nga ci bàmmeel xam na yaay dox bi gën a te sëñ Tuubaa daana ko wax leen dof gi te jaamu yàlla bàyyi leen dof gi te jaamu yàlla xam ngeen lan mooy ak ndofa ñu ne ko déedéet mooy nga dem ne wétt ca ker ga gis ko ne wéng ca naaj di liggéey taw loolee muy def boppam tax nga defe na nag yow xat nga ci loola wala mooy dëgg dëgg ak ndof te ñu baree bare def nañ ne dañ leen di tungoom yóbbu àjjana sëñ Tuubaa ne na kenn du tungoom nit di ko yóbbu àjjana kenn ku nekk ci say jëf ngay ngay ngay lañ lay yóbbu àjjana wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis wax naa ngeen dégg def naa ngeen gis bind naa ku réer yaa réeral sa keneen ku ñëw réeral la it te nga nangu mu réeral la yaa yóbbu nit ñi nag dañoo bëgg ku leen nax ndax dañuy jël seen xaalis fekk nit ne ko kaay nax ñu ci sëñ kaay nax ñu dugal na àjjana tam wóoreen nax moom fu mu dugg xam nga ne loola du dëkk ñu dikk na sëñ bi nee na ko ànd ak moom da nga dem àjjana ànd moom nag moo jaral leeral nan la ñuy ànd moom ndax dañuy ànd ak moom ci lu nekk ci lu la neex wax lu la neex boo faata mu tàbbal àjjana sëñ bi lislaam la xàllalu lislaam la yeesal lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatul xaraa wa inni ahmadu sunna joojee mu doon teg tànkam nag ku ca teg sa tànk ànd na ak moom waaye mu teg tànk jëm penku nga jëm sow mu jëm gànnaar nga jëm saalum tane sëñ Tuubaa la àndal déedéet seytaane nga àndal ndax bari na ci ñun tey boo leen waxoon la ñuy xëy di ko roy ci seytaane mën nañ la ne duut ni la léegi lii waaye boo leen waxoon la ñu roy ci sëñ Tuubaa mënuñu ko wax di wéy sama sër yi rek nangam ak nangam naa am alal rek nu ma ko amee rek bu mu ñëwee joxe ci àddina am na ci ñoom dañuy dem sàcc wala ñu wala ñu daan nit wala ñu def trian nit wala ñu dem carte ba am xaalis defe ne ñu ci compee dara jox sëñ Tuubaa rek loolu la dagan na sëñ Tuubaa bind ko fenn ku leen ko wax waxul dëgg sëñ bi waxul ne demal nga jëli lu la neex te lu neexul suñ borom ñëw di ma ko jox du dëgg alal jii ñuy daw di xëccoo nag ba tax lu bari mu yàq ko sëñ bi nee na woon naan ceer na àddina dina ñëw ci kanam day bis yoo xam ne si